nee na ginnaaw ba mu sante boromam subhaanahu wa taala muy julli ci yonent bi Muhammadu Rasulullahi muy julli ci bi sallallahu alayhi wa di sant xaadimal Mustafa Cheikh Ahmadou Bamba wa Abdullahi wa Xaadima Rasul di na di yaakaar di sunu yaakaar tey ak ëllëg ñuy ziare ñi ngan ko turuqul islaami yëpp nee na mi ngi nuyu julit yëpp. nee mi ngi ziaré wa keur Cheikhul Khadim yëpp. Eh, nee mi ngi leni sante bu baakha baax ci wuy ci wuy si bi ngeen wuy si woote bu sel bi bu tedd bi bu kawé bi. bi nak liko waral. nee ak rek la. mooy sant sunu borom nee na woote bi mooy sant sunu borom subhaanahu wa taala rek la. dellu di nee na dellu di sant xaadimu rasuul bu baax. xam ne nee na nga xam ne lépp lu ma am. moo ko moo ko waral moom Seexul Xaddim. ziyaara. na mi ngi ziyaara. Serigne Mountakha Mbacké Bachir. Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mahamadul Bachir moom Seexul nee na di way juram. di woon xaritu way way juram. sëñ Aliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha nee na di léppam. ñu yaakaar ko bu baax ñu yaakaar ko bu baax. nee muy ñaan yàlla. liggéeyam bu tedd bii bu tedd bu sell bii. te am ci yéene lool. di ko liggéeyal maamam di ko liggéeyal maamam na ko yàlla yeggale te ànd ko jullit yëpp ak taalibe yëpp. nee ba eggale naal mu naal yëpp. nee na kon nag li waral woote bi mooy. dafa am ay bokk. nee dafa am ay bokk. yu fi yoo xam ne dañ fay ñëw. ñuy jóge Louga. ñuy jóge ci wàllu ñi jóge Louga ñi nga xam ne. fa la cosaanoo moom mii ci wàllu wayjuram wu jigéen. ak ca wàllu googa. ca ñam bokkal ca wàllu googa nag. ñu jóge Ndakaaru. nee na ak ñam bokkal ca wàllu googa. ñu jóge Touba. ñu ñëw fi tey nag. nee na mu woo fi itam. daayira maj ma honoré mu woo fi daayira maj ma honoré yi nekk Sénégal yëpp di fédération bi. nee na mu xam xam xat-xati jamono lool. nee na moo tax mu ne daayira bu ne. na ca kenn rek ñëw. nee na kon nag loola defe ngeen ko ni mu ko bëggee woon. nee na nag mu am rek lu mu bëgg leeral. nee na mu wax ñu ne. bu ngeen gisee nee na bu ngeen gisee ngeen daan fi ñëw màggal. wala yeneen i xew. wala yeneen i xew. wala wootee sëñ Touba yi. wala nee na bu ngeen ñëwee. mu xat lool ci yéen ci gise bi. loola li ko waral. nee na loola li ko waraloon. lu may liggéeyal sëñ Touba rek la. lu may loolu rek moo tax. ku fi ñëw na moo tax ku fi ñëw fii rek. mas fee ñëw. mas fee ñëw. jànkonte fekk jafe-jafe. jànkonte ko fi ay jafe-jafe. te gis la. nee na te gis ko moom mi jafe ko jafe la. na nga xam ne du yi. na xam ne loola du woon ak ñàkk yi téem. xat-xati jamono rek la woon. su ma sañoon day. kenn ku kenn ku nekk ci ñun. fa nga nekk nee na fa nga nekk. bu ne. na bis bu nekk. dana la fekk. la fekk. saafonte ak yow. saafonte ak yow. sant la bu baax sant la bu baax. ci liñ bokk ci liñ bokk ci Serigne Touba. sant la bu baax nee na sant la bu baax it. ci kóolute ga nga amoon. ci kóolute ga nga amoon. ci Serigne Aliou. ci Serigne Aliou Mbacke moom Cheikh Ahmadou Moustapha. wala Serigne Ahmad. wala Serigne Ahmadou Mbacke Tindodi. wala ñu mel ni ñoom di njabaru Cheikh Ahmadou Moustapha gi. nee na ba nga féetale ko. ca ñooña. ca ñooña. te loola. ñu koy sàmm. nee na te loola mu koy sàmm moom mii bu baax a baax a baax. nee na te yéen ngeen gën ko ko sàmmale nag wax dëgg yàlla bu baax a baax a baax. ndax nee na li xat xat xat. nee na kenn xadiwul wax dëgg yàlla. nee na ndax lu mas a soxla rek. def ngeen ko la kawe njortam. nee na fu mu mas a wootee itam wax dëgg yàlla. nee na ñëw ngeen teew. nee na kon nag nee na kon nag amul seen fay nee na seen fay daal yàlla rek ko am nee na yàlla na ko yàlla def ci darajay Cheikh Ahmadou Bamba Xaadima Rasul nee na loolu rek moo tax nee na sa nee na bokkam yi nga xam ne ñoo jóge Louga ak bokkam yi jóge Ndakaaru ak eh, yi nga xam ne ñoo fi nekk ak bokkam yi nga xam ne ñoo fi nekk nekk fii ci Touba nee na moo tax mu wax ñépp rek kenn bañ a dem ndax ñu mat ko seere ci yéen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne ci daayira maj ma honoré taxawaay taxawañ ko ci jëmam ji nee ci muñal guñ ko muñal nee na li muy nekk ci ay xat-xat lool nee na xaddiwuñ benn yoon wax dëgg yàlla nee na kon nag alhamdulilah na loolu rek moo taxoon muy woote nee na mi ngi leen di xamal ne waxoon naa ne. nee na waxoon na leen ne. képp ku ñëw ci yéen. nee na képp ku ñëw ci yéen. na leen sëriñ Cheikh nee na ngeen jox ko ñaar dërëm. na leen ngeen jox ko ñaar dërëm. fàq leen yat. na fàq leen aw yat. tey laa gën a wax na tey ji nag la gën a wax loolu ndax loolu du ndigalam. ndax li na ndax moom li muy def. damay ñaq. na moom day ñaq. sama ñaq laay aw ñaqam daal la fas yéene dundee. li waay jox nag. na lu ko waay jox nag. ngir ngir li ñu bokk di sëñ Touba nee na kóllëre googu nee na nga xam ne way jur ya ñoo ko façon ci seen biir nee na loolu moom lu ca waay def nee na danañ ko dundale kóllëre googa nee na am na leneen nit nee na loo xam ne ñor na ko lool ndax nee na 2001. ginnaaw ma sëñ Saliou yónnee Maroc. nee na ginnaaw ba ko sëriñ Saliou yónnee Maroc. nee na ba mu dellusee. nee na ca fan yooya rek. muy 2001. muy 2001. la sosoon. nee na la fasoon. mbootaay goo xam ne. mbootaay dañ koo jagleel Serigne Touba. mu jëm mu jëm ci dimbalante. jëm ci mbindeef yi nga xam ne. seen loxo dafa jotul seen ginnaaw. nee na ne wala ñu wala ñu lompañ ñi. ñi ko aajowoo. nee na loola nag. nee na nag loola dox na ci ay jéego yu yaatoo yaatu. nee na ndax am na lu ñëw ci diggante bi nee na ba am lu ñëw ci diggante bi nee na mel na ne mel ne mel ne daf koo xaw a daf koo xaw a wàññi nee na wàññi wu ko dafa dëgg yàlla maanaam dañoo wàññi rek fésal ga nee na dañoo wàññi rek fésal waaye nee na ko doon liggéey nag ci biir nee na loolu daf koo bëgg a bëgg a gën a dundalaat nee boole ci ñëpp nag nee na bàyyiwul kenn ñëpp rek nee na kon daawut laaj nee na lii nag moom bëgg na moom ñu ñëpp ñu bokk ci jàpp ndax réew mi neexul nee na adduna sax lay wax ne neexut nee na adduna ci boppam sax moo neexut ndax nee na kenn ku nekk nee na sas tuut nee na war nga cee mën a génnee dara. Euh, dimbalee ko ñi nga xam ne. dimbalee ci ñi nga xam ne. dañoo néew doole. foofu daal la bëgg a jëme gën a jëmee sama foofu daal la gën a jëmee liggéeyam. ci la ci la ci la gën a sóobu. nee na te loolu ci la gën a sóobu. bëgg leen cee sóob ngeen ànd ceeg. nee bëgg leen cee sóobit ngeen ànd ceeg moom. nee na liggéey boobu daal la fas yéene. gën koo dundal. bu baax a baax a baax. nee na ndax ndax bu boobaa. du am xejj du am seen. nee na na sëriñ bi ñaane woon rek. ne yaa maalikal mulki. yaa man jalla an qawadi. irham jami alwara. yaa hadi an radaha. nee na amul xejj ak seen nee na luy mbindeef rek da ko suñ liggéey boobu nee na moom suñ tubaa rek lañ koy jagleel nee na bàyyil ci toolam bii nee nañu wala ñu mu bañ booy benn yoon nag benn yoon nag nee na wax dëgg yàlla nee na cant googu rek laa amoon moom lañ am rek ngir duñu ko wax ñun ñëpp nee na ku dégg leneen nee na jógewut ci kàddoom nee na mi ngi ñaan sama gémiñ seeni nopp nee na gémiñan daal ak suñu nopp rek wala nee na suñu gémiñ ak noppam rek nee na loolu doy na sëkk nee na doy na sëkk ci àdduna nee na ndax la sëñ ba waxoon rek nee na boo noppee ñu ne daa mer ñu ne boo waxee ñu ne day xuloo nee na jamono ju mel noonu nag joo ci nekkee nee na wax lu leer nee na gimiñam daal seen nopp nee na seen gimiñ noppam rek moom nee na kon nag nee na bii nga xam ne. kii fi nekkal Cheikhul Khadim te mate ko sëkk muy sëñ Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Bachir nee na te yàgg liggéey nag lu yàgg lool nee na nekkee sëñ Touba yàgg na lool de nee na fi nekkal nekkal a nekkal sëñ Touba rek déggal na la jàppal na la ba nekkoon ca loola ci a ñëwaat nag nekk Cheikhul Khadim nee kon nag nañ fexe ba nee mi ngi ñuy digal ne ñun ñëpp nañu ànd laxasaayu jappalé señ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Amadou bashir néna ta xamné kuko jappalé señ touba rek nga jappalé nee na ku ko Muhammadu rek nga jappalé néna kuko jappalé néna yaangi tolu na sunu borom subhanahu wa taala bi di bay ndax noonu lool rek ñor señ Muntaxa Mbàkke neen loolu rek ko ñor señ touba ko ñor yonentu ko ñor sunu borom subhanahu wa taala rek ko ñor kon nak rek la amone doon ci def ay seere rek nee na Baye Cheikh Lo mii ne mooy njiitul daayira Majmahun Nurayni yi nekk yi nekk biir Sénégal nee na fu fi waay mën a jóge rek ci réew mi nee na mi ngi lay sant bu baax nee na su ngeen demee nee na nii mu ko waxee nee na su fekkee mën nga leen bi moo gën ndax jottali ay wax nee na dafa a jafe nee moo xam nga yokku ca nga wàññi ca te du ca tuuti ndax ak yàq mën na caa am nee na allahu nee na fu ci waay mën a mi na jotti kaddu bi yi nga xam ne moom mooy mom la wax neena liggey bi dal la sumbu nagn ko bokku liggey yene wala ci sunuy wayjur muy serigne ali hu Mbakke ak serigne amadou Mbakke nga xamne ne la leen Cheikh Mouhamadul mustapha baye won ci war wi musta booy mukk ne te net na neena seni mandarga nee foo xool gis ko nee na kon nag nee na sëñ Ahmadou Diop nee mi ngi lay jël seere yaa ak sëriñ Cheikh Lo mii ak sëñ Mut Sall yéen eh, ak yéen ñi jóge Louga nee góor ak jigéen mag ak ndaw nee na mi ngi sant bu baax sëñ Moustapha Ndogal Dieng nee na di leen xamal na it nee na lu mas a nekk guddeeg bëccëg rek ndaka jekkit ànd na ci ak moom nee na kon su ko jaaree ci moom rek eh, nee na mu kon mi ngi sant euh, mbokk yëpp xarit yi am di jàmm yi nee na fu ñu fi mën a nekk rek nee na mi ngi sant ñëpp ndax nee na yéen a bokk ak moom lépp te mat ngeen a ma ngeen ko seere sëkk ci wax ji muy wax ci ñii xam ne ci ñi ko sëñ Tuubaa booleel nee na ñu xam ne yàlla moo am seen pay waaye nee daal sant leen bu baax a baax gërëm na leen nit nee na na leen sëñ Aliou sante woon na leen sëñ Ahmadou Mbacké sante woon ci pencum Cheikh Mouhamadoul nee na kon daal mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa